wa inni u'izuha bika wa durriyataha min alsheytaani irrajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu giñ ci def di nuyu ak di ziare itam seex Muhammadul Muntaqa di ñaan yàlla mu yokk aw fanam te may ko wér yaram bam mu yeggale mboolem naal yi mu am dañ ànd koog moom mbokki jullit yi tey nag dañoo dellusi ngir fàttalante ci benn cër boo xamante ni ci ceri doomi aadama yi la te doy waar lool te mooy làmmiñ ndax làmmiñ wi sunu boroom def muy xéewal mu jox ko doomu aadama lu bari ay njariñ la lu ko mën a jariñ la itam waaye ci kaw mu tënku ci ndigal waaye lu doy waar la itam lu yéema la itam yu bari ay loraange la itam su fekkee jullit bi jëfandikoowu ko niñ ko ko sante woon moom làmmiñ moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàgg xamal doy waar gi làmbiñ doy waar ba yegg ci mu waxoon ne noppi ku ko def mucc man samata naja loola nag mooy noppi ci lépp loo xamante ni ay wax la yoo xamante ni digaluñ la ko te amul njëriñ njëriñal àdduna amin amul njëriñal àllaaxira nee na ku noppi ci yépp wax joo xamante ni amul njëriñ loola aw yoon la ci mu mucc ñu jële itam ci abdullah ibnu sufyaan mu jële ci way juram mu wax ne damaa demoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dama bëgg nga wax ma ci lislaam mbir moo xamante nii wax jangama cay wax dana ma doy sëkk ba duma demaat ci keneen di kolaaj laaj ginnaaw bi ma la ko laajee yow yonente bi loola nag ba ko ko waxee yonente bi xam ne kii dénkaane bu rëy bu tënku moom la soxla yonente bi ne ko qul amantu billahi summa staqim nanga wax ne gëm naa yàlla te mu dëggu ci yow nga wax ko jëfe ko boo noppee itam nga jub kocc nag ci siraatal mustaqim ñaari baat yooyu la ko wax muy gëm yàlla ak jub muy al imaanu wal waaye boo gisee ñuy andi wax addis bi mooy lam ca teg ginnaaw ba mu déggee dénkaani boobu ko yonente bi alei salaatu wasalaam wax te mooy mu sax ci gëm yàlla ak jub koc nee na dama ko caa tegal ne ko loo may digal nag ma moytandiku ko yow yonente bi loo may digal ma di ko wattandiku nee na yonent bi alei salaatu wasalaam fob loxoom bu tedd ba teg ko ci aw làmmiñam ne ko xanaa lii xanaa lii li ma lay digal nga moytandiku mooy lii te mooy làmmiñ kon yonent bi foofu bëgg na fee junju junju bu rëy nag ci ne làmmiñ doy na waar lool oqbatum nu amir itam waxoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko ku bëgg a mucc fu muy jaar loola itam laaj bu am solo la ndax ñépp a bëgg a mucc te yàlla na yàlla boole ca ña mucc ne ko ku bëgg a mucc fooy jaar yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tontu ko ñetti kàddu ba ci njëkk da ne ko soo bëggee mucc la ca jiitu mooy nangay ngay téye saw làmmiñ am sikk alayka lisaanak na ngay téye saw làmmiñ ba doo ci wax luñ la digalut bu ñaareel ba mu ne ko wal yasaaka baytuk sa kër na ko def mu yaatu ci yow lool ba doo ko génn ci dudul yitte ju yitte ju am yitte wala ju far bu ñetteel ba mu ne ko wabiki ala xatiatik say ñaawteef na la doy nga di ko jooy ak bëgg koo fóot bam set ci sa jëmm walis ngay topp ñaawteefi doomu aadama yi di ko yittewoo kon ñetti mbir a ngi noonu yoo xamante ni ku ci jàpp bu neexee yàlla incha allah da nga te mooy téye saw làmmiñ doo ci wax lu dul luñ la digal ook sa kër doo doxi lu dul yitte ju far ak yitte woo say ayib ak say sikk bala nga yitte woo ayibi keneen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tam waxaat feneen ne ku ma téyeel li nekk ci diggante ñaari ŋaamam téyeel ma li nekk ci diggante ñaari tànkam danaa ko warlul aljanna may yetakaffalu lii bi ma bay na bayna lixyayhi wa rijlayhi atakaffalu lahul janna boroom xam-xam yi nag ne li nekk ci diggante ñaari ŋaamam mooy aw làmmiñam lu nekk ci diggante ñaari tànkam mooy pëyam nee na ku wattu ñaar yooyu yonent bi nee na dana la warlul aljanna kon foofu itam ñu dégg ci ne làmmiñ lu mat di bàyyi xel la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tam ñu laajoon ko lii tàbbal nit ñi ëllëg aljanna la ca ëpp gën caa bari mooy lan yonent bi ne ëllëg day lay tàbbal nit aljanna la ca gën a bari ci ay jëf yoo xam ne dana tax nit ki tàbbi aljanna bokk na ca taqwallahi wa xusnul xuluq mooy ragal yàlla ak am jikko yu rafet waaye ña ko laajoon ne ko laaj bu njëkk boobu ñoo ko laajaat tam ne ko lan moo ëpp ci liy tàbbal nit ëllëg sawara wala yaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal mu ne al ajwafaani ñaari cër la yu biire mooy gémmiñ ak pëy bu nee gémmiñ nag ñu man caa dégg ne moytandiku gàkk-gàkk ak sikki làmmiñ ca la bokk man caa dégg itam bañ a tàbbal ci sa biir lu araam ndax nit ki bala moo yegg ci biiram day jaar ci gémmiñam lay yegg ci biiram day jaar ci gémmiñam kon ñaari cër yooyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam neen nañ koy bàyyi xel ndax boo ca defee lu dul noona bokk na ci li ëpp ci liy tàbbal nit ñi wala yaasu billahi sawara ëllëg sayiduna maasum nu jabal wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko waaw yonente bi ndax lii ñuy waxante ci sunu biir yàlla danañu ko jàppe ndax lii ñuy waxante ci sunu biir ndax yàlla danañu ko jàppe ndax danañ ci bindal bàkkaar ëllëg rawatina bu dee wax ju doy waar yonente bi ne ko yàlla nga toskare mooy luy nga laaj day ku mel ne yow war naa xam tontu li xanaa dangay laaj ngir jàngale yow maas daane ko xanaa xamoo ne ëllëg ña tàbbi sawara wala iyaasu billaahi ba fab seen kanam ya këpp ko ca biir sawaraak ak mbugal mu metti moomee dara yóbbewu leen ko lu dul seen góobiiti làmmiñ seen góobiiti làmmiñ moo leen ko yóbbe wa hal yakubbu nnaasa fi nnaari ala manaxirihim illa xasaidu alsinatihim loolu nag ku ko dégg te bëgg a mucc sawara danga xam ne sa làmmiñ war nga koo téye ba doo ca wax wax joo xamante ni ëllëg da lay yóbbee moom musiba moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu xam gim xam làmmiñ ak doy waar gi mu doy waar ak njëriñ lim am nag waaye ak loraange ca ca wékku moom làmmiñ taxoon na mu yàgguñu cee yee nee na woon amal lisaanu fahfaduhu abada min astamaniyati yatikum huda nee na woon làmmiñ na ngeen ko wattu ba faawu ci juróom-ñetti yëf na ngeen wattu seenu làmmiñ ci juróom-ñetti yëf ba bu leen ca bi bu ngeen ko defee yatikum huda ak njub dana leen dikkal ba ca njëkk mooy nar te mooy wax lu dul noona bu ñaareel ba mooy jëw bu ñetteel ba mooy werante bu ñeenteel ba mooy dàggasante bu juróomeel ba mooy reetaan ngir xeebeel gooy xeeb sa mbokkam nit wala sa mbokkam jullit ak nag di wuute ab dikk loo digge daal na ko fa yéenee def ba ñàkk ca pexe ak rëbb mbindeef yi loolu lépp làmmiñ da koy def ak nag naw sa bopp ak tagg sa bopp ndax nee na yooyu yëpp muy alkis bi walxiibati walmiraai maa aljidaali wa min istihzaai walxulfi fi lwaadi wa laani alxalqi tazkiyati nafsi bi qawli alxaq li qawli rabbin fiihi laa yusakku fi suurati najmi fala tuzakku nee na borom bi tabaraka wa taala daf ñoo tere ci saaru najm ci ñuy tagg sun bopp wala ñu koy naw nee na waxeer yaa ak yu dul yooyu itam lu mel ne kaf ba dugal ca lu dul noona lu borom bi gërëm lawut ak ñaan yàlla mbindeef yi ngir lu leen alak loolaa nga ji wàcc ñoom ak ñaawteef nee na loolu lépp dara baaxu ca wa gayriha kal mazhi wa duaai ala al wara bi durri wal aswaai juróom-ñetti yëf yooyu nga xamante ni sëriñ bi dañu koy moytandikuloo ci sunu làmmiñ nag soo ko moytandikoo ba noppi nag bañ koo jëfandikoo cee leeral kese itam amul njariñ cee leeral gi kese amul njariñ danga koy wottee yii ñuy bëgg a wax nga jëfandikoo ci saw làmmiñ ba ca njëkk mooy saw làmmiñ na nga cay jàng alquranul karim di ko def ngir jëm yàlla na nga cay jàng xasiday sëriñ bi te di ko def ngir jëm yàlla na nga cay defar ab diggante bu yàqu te di ko def ngir jëm yàlla na nga cay jéggulu borom bi te di ko def ngir jëm yàlla na nga cay zikr di tudd yàlla na nga cay julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam kon bam la tawee juróom-ñett ya wuutal na ko juróom mbenn yi ñu tudd ak lépp lu baax nag loo xam ne sariya nangu na ne lii lu baax la nga koy wax ci saw làmmiñ moo tax yonente bi wassalaam ajoon wax lu baax soo ko munta wax nga noppi mu aj ko ci gëm yàlla ak gëm bis pénc ne woon képp koo xamante ni nangu na ne yàlla mooy buur bi gëm na ne ëllëg bis pénc day ñëw te amul benn sikk sàkka nee na fal yaqul xayran aw liyasmut nay faral di wax aw yiw wala mu noppi aw yiw nag mooy loo xamante ni njëriñal àddunaa nga ca wala njariñal àllaaxira moo tax nag euh, képp koo xamante ni bëgg na ak ngëmam mat ngëm gëm gëm yàlla te gëm àllaaxira nay faral kon di wax wax ju baax walla mu nopp ngir xamle ba tey doy gi làmmiñ doy waar ak loraanga yi ak làmmiñ wu tarxiis lim mën a yóbbe borom ku mel ni sayidna omar ibn xattaab radiallahu anhu masoon naa gis sayidna abu bakar radiallahu muy xëcc aw làmmiñam sayidna omar moo gis sayidna abu bakrin muy xëcc aw làmmiñam mel ne xëcc ga muy xëcc xëcc làmmiñ wa ngir jéppi aw làmiñam a tax jéppi ko waaye Omar ne naa ko laaj lu waral lii muy def ne ko yow xalifa yonente yàlla bi lii ma gis nga koy def di xëcc ci sa làmmiñ wi mel ne am na lu la neexut ci moom lu ko waral mu ne haada awradani l mawaarid haada awradani li tax ma koy xëcc moom làmmiñ wii day lu ma dal sikk su ma dal moom a ko yóbbi ak fam yeggoon moom ak nañ ko yaakaare woon ci ak mbaax waaye ba tey ma ngay ko aw làmmiñ di wax ne hada awradanil mawaarid lu ma dal sama làmmiñ yi moom a ko teg ak daraja jam yeggoon teg ca ne moom Abu ne loolu lépp itam ànd ak déggoon naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne amul benn cër bu nekk ci yaram bu dul jàmbat yàlla làmmiñ ngir ak talam nee na cër bu nekk ci yo yaramu doomu aadama day wëlbatiku di jàmbat sunu boroom làmmiñ naan ko yow sunu boroom dimbale ñu ci làmmiñ ngir su jagee rekk ñu jag waaye su jagut duñ mën a jag ngir xam guñ xam eh, ni làmmiñ tare ak ni mën a andile musiba ku ca ku dul jëfandikoo na ko boroom bi bëggee loolu la waxoon moom Abu Bakr ne yonente bi nee na woon laysa shay'un min al jasadi illa yasku ila llahi lisaana ala xiddatihi loolu nag li muy tegtale mooy wareef nay moytandiku waxtu wu nekk eh, nit ki di sàmm aw làmmiñam ba lu ca wax loo xamante ni Euh, neexul borom bi tabaraka wa ndax man na koo andil musiba abdullah ibnu masud radiallahu anhuma dañ koo gisoon mu nekk ca kaw doju safa di wax labbayka labbayka lahumma waaye ànd ak loolu mang ca boole woon lii naan yaa lisaanu qul xayran taxnam waskut an charrin taslam min qabli an tandam nee dañ koo gis muy labbayka ca kaw doju safaa moom abdullah ibnu masud boole koog di wax naan yow làmmiñ te ngay saxoo di wax aw yiw soo bëggee am am koom soo bëggee mucc soo bëggee am am koom yow làmmiñ te bëgg a mucc deel saxal di wax aw yiw yow làmmiñ itam foo gise aw ay ak safaan ba safaanu yiw na nga ca noppi bañ koo xam bañ koo yokk soo ko defee danga mucc te da mucc itam ci ak réccu ba nit ñi déggee Abdullah ibn Mas'ud muy wax loolu ca kaw doju safa ñu ne ko yaa Abdallah yaa aba Abdurahman baat yi ñu la dégg ngay wax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon nga net li ñu ko wala sa waxi bopp la mu ne lii day sama waxi bopp la waaye maanaama day ci yonent bi la la sallallahu alayhi wa sallam ko dégg woon ñu ne ko loo déggoon ci yonent bi mu ne déggoon naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne inna aksara xataaya bni aadama fi lisaani li ëpp ci ñaawteef yi doomu aadama di def ci dundam yee ca ëpp mu ngi juddoo ci aw làmmiñam kon nag mbokk yi mën nañoo taxawalante foofu taxawane foofu ci xamle ne làmmiñ a ngi noonu doy waar lool di nekk loo xam ne jumtuwaay la boo xamante ni ku ko sàmm def ca jëfandikoo ko ca la borom bi tabaaraka wa taala bëgg yàlla mën na laa musal ci àdduna musal la ca àllaaxira yàlla yàlla boole ca ñooña waaye ku ko sàggane itam di wax lu la neex ak fam la neexee ak di ko teg ca kam la neex ak mbooloo ya la neex itam da ko rëcc ci àdduna da ko rëcc ca àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal أشهد أن لا إله إلا الله أشهد เดิน أكبر juróom-ñett yooyu nga xamante ni sëriñ bi waxoon na ne nañ koy moytandikul sunu làmmiñ lu mat di bàyyi xel la ndax sikk yu baree baree bari daf caa juddoo ba ca njëkk mooy wax lu dul noona ak jëw ak werante ak dàggasante ak xeeb ab jullit di wax loo xamante ni day tax barab bañ ko waroon teg ñu wàcce ko fa ak dige dara te doo ko def ak rëbbu mbindeef yi ak naw sa bopp di ko tagg ak di kaf di ca rax loo xamante ni du dëgg ndax kaf ayut waaye kaf ju ju ñu rax loo xamante ni sariyaan nangu ko moom lañuy wax ak di ñaan yàlla mbindeef yi ngir aw ay wàcc seen kaw yooyu yëpp ay jikko la yoo xamante ni ci làmmiñ lay joge sëriñ bi neena nañ koy moytandiku waaye itam ñu wottee ko jàng alquran ak jàng xasida ak defar diggante bu yàqu ak jéggulu borom bi ak tudd yàlla ak julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ itam saxaaba yi niñ yittewoon a xam seen diine ba daa dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sàkku ci moom mu leen di leeralal lu leen di musal àdduna ak àllaaxira loola la ñuy wéyale ba léegi ndax abdullah ibnu omar radiallahu anhuma dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu nee na woon man kaffa lisaanahu satara allahu awratahu nee na woon ku aw làmmiñam yàlla suturaal awraam mooy képp koo xamante ni euh, la la yàlla digal ci saw làmmiñ te mooy yooyu ñu fi tuddoon te yépp di yu baax di aw yiw koo xamante ni loola rek moom lay jëfandikoo aw làmmiñam leneen yitteelu ko rawatina lu naqari borom bi nee ku ko def yàlla suturaal sa awra mu teg ci ne waman malika ghadabahu waqaahu llahu adabahu képp koo xamante ni su meree mën a boppam ba du wax lu naqari yàlla du jëf lu naqari yàlla neena na kaman loola sunu boroom dana ko fegal mbugalam ëllëg wa man malika xadabahu waqaahu llahu adabahu koo xam ne su meree xam la muy wax xam la muy jëf ba du wax lu naqari borom bi du jëf lu naqari borom bi nee na kooka lay ak fayam ca muñ góogee mo yàlla dana ko fegal mbugul mbugalam ëllëg mu teg tekke ne wa man i'tadara ila allahi qabila allahu udra nee na ku sàkku sunu borom jéggal la te nga dëggu ci sàkku ga mooy tuub-tuub gu sell sunu borom dana nangu jéggalu googu nga ko doon jéggal jéggalu ba jéggal la kon loolu itam buñ ko booleek la jiitu woon day dellusiwaat cine ne làmmiñ moom lu mat di moytandiku la ba bañ caa def lu neexul borom bi waaye itam xante woo ca lu neex borom bi ci yooyu ñu fi tuddoon ñu jëlewaat ci beneen saxaabi bu mag ñu koy wax alburra ibnu azib mu ne dafa amoon ku ñëwwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xamante ni su ma ko jëfee ame ca fay aljan aljanna ëllëg loola itam nag kon jullit bu nekk war na koo déglu fas yéenee jëf jëf yooyee ba ca njëkk yonent bi alei salaatu wasalaam ne ko at-ta'imil jaa'i'a su la yàlla baaxee nga am aw ñam wu doy boo gisee koo xam ne dafa xiif nang nang ko ca jox te yàlla rekk tax nga koy def loolu bunt la ci yi nga xamante ni bu ko sunu borom nangoo mën na cee tàbbal nit aljanna muy mu ne ko atamil jaa na ngay leel aw ñam ku xiif waaye nang ko def ngir jëm yàlla te loolu feeñ na fu baree bari ci alquraanul karim fu sunu boroom di soññee ci ñuy joxe aw ñam te di ko def ngir jëm yàlla mu tegal ko ca ne ko wasqi damaana soo gisee nit ku mar te nga man koo màndal am ndox nanga ko jox te def ko ngir jëm yàlla loola itam bunt la ci bunt yi mën a tàbbal nit aljanna ëllëg mu tegal ko ca ne ko wa'mur bil maarufi soo gisee lu baax te gis koo xam ne soo ko ko digalee mu nangu koo def nangoo ko digal waaye wanha anil munkar soo gisee safaan ba itam te gis nit mu nar koo def te soo ko ko teree mu bàyyi ko nang ko tere safaan boobee muy digle lu baax ak tere lu bon ak sart yam àndal nag mu ne ko nag fa in lam tutiq fa kuffa lisaanaka illa min xayrin yii ma la tuddal yow burra te mooy joxe aw ñam ngir jëm yàlla soo ko mënut te mooy jox nit mu naan ngir jëm yàlla soo ko mënut soo munte digle lu baax ngir amoo kàttan ga wala xam-xam ba xàmmee woo sax lu bon ba man koo tere wala boo ko teree kenn du ko ba fa in lam tutiq soo mënut benn ci yi nag fa kuffa lisaanaka illa min xayrin na ngay téye saw làmmiñ ba bu ca wax lu dul aw yiw loolu nag mbokk yi lañ cey dégg mooy joxe aw ñam baax na lool jox nit mu naan ngir jëm yàlla baax na lool digle lu baax baax na lool tere safaan ba baax na lool waaye ndekete soo ci mënul lenn yonente bi nee na alayhi salaatu wasalaam nee na boo téyee saw làmmiñ waxoo ci lu dul aw yiw dafa mel ne wuutu na yooyu yëpp kon loola dellusiwaat ci ne làmmiñ kat ndekete bu ko nit ki jëfe jëfandikoo ca la ko borom bi santoon kat yoon la wu yaatu ci tàbbi aljanna yàlla nañu ko yàlla defal abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma itam waxaat feen loo xam ne daf koo jaral mu giñ te saxaabi bu mag la ne wallahi allazi laa ilaha illa giñ naa ci yàlla mi nga xamante ne amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo jaamu ga bu dul moom ñu ne ko looy giñ mu ne maa say un ahwaju ila tuuli sijjinin min lisaan gisuma ci àdduna lu jar ñu tëj ko kasaw te tëj ba yàgg lool lu dul làmmiñ lu dul làmmiñ moo tax sëñ bi te moom lañuy tëje waxtaan wi ne woon na ngeen di tàmmal seenu làmmiñ wax aw yiw ndax nee na làmmiñ loo ko tàmmal mu tàmm ko loo ko tàmmal moom lay def bu dee lu baax lu baax lay tàmm wax su dee safaan bi itam safaan ba lay tànn wax kon yàlla nañu yàlla musal ci ayu làmmiñ yàlla nañu yàlla wattul sunu làmmiñ ci mbooleem rëcc-rëcc yi te def ko ratban bi dikrillahi ñu ciy tudd yàlla di ci jàng alquran di ci jàng xasida di ci julli ci yonent bi di ci def mbooleem yu baax yi yàlla na fi yàlla bàyyi sëriñ bi te may ko fan wu gudd ak wér bam yo yeggale mbooleem naalam yi dañ ànd ak koo moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi mutawakkilan alayhi mu'tamida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن الخطايا كي تنالوا الخيرات والهدى وأكثروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في ظلام الليل والناس نيام هنيئا لمن عمل وجد فيه مجتهدا ألم يان للأذن الصمء أن تسمع ألم يان للطرف الجامد أن يطمع ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا هذا ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا وفي الحديث إن الدعاء في رجب مستجاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى أما بعد فيا عباد الله الله الله اتقوا الله وحافظوا رحمكم الله على الصلوات واعملوا الخير فإن خير أعمالكم الصلاة وإني أخشى علي وعليكم أن تكونوا ممن قال فيهم مقالا يتعظ به من كان قلبه حيا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وفي الحديث الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim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 سمع الله لمن حبنا ولك الحمد الله أكبر الله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 am السلام